مركزنا ينادي rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sant sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal looy déglu yëpp Hajj Mbàkke ngi nii toog bi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 xibaar yi nga xam ne moo gën a ràññeeku ci ay bis gi ñu nekk gi ñu génn soxal euh, bépp xibaar bu man di doon indi ko jàngat ko giseen wi nga xam ne moom la ci daara ji am insha allahu taala buñ ca noppee dalal suñ gan ñi bàyyi ko ci ruq kokki bu mu nuy jotee ñu ànd ak waa euh, rédaction bi ci xibaar yi ci français ak ci wolof dellu si ànd ak auditeurs yi ci biir réew mi ngi nekk bitim réew ci téléphone bi ci 88 628 98 98 ak ci 33 841 bi dégtalaat leen tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom ci alkitab ànd ak ñoom ci rijaalun xawla rasul ak muhammad nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam bu 5 heures jotee ñu déglu alquranul karim 5 heures 30 ñu ànd ak mbokk yi ci almisbaax 6 heures ñu ànd déglu waxtaanu fajar tey di alxames fajaruk àjjuma la kon waxtaanu fajar wi di baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boroomam subhaanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéene tëddee jaajëfal nag ci émission bu mbees boobu tabaarkalla bi nga xam ne bu ñu dégloo xibaar ba noppi ànd ak yow ba deux heures jàpp rab yooyu réew mi yëpp suñ mbàkk dinañ am na solo de. tubarkàll tubarkall jërëjëf oustaz ah. am nañ solo de. <laughs> Ah, ngeen yokk ñaan yi rek te xam ne yéen la lépp yéen la tubarkall. <laughs> <laughs> غادر tabarakallah nee nañu fa saxaaba yi jaaroon lañ bëgg a jaar nabqa durra saxaab foofu nag ku fa jaar defar penc mi yomb la xale yi seen way am na solo um ka balde ci Rufisque la nekk salaamun Aysa Jang Ali Imran nekk fële ci Yoff wala ci Grand Yoff salaamun ñoo ngi wax Moussa Wade ci Mboro salaamun caare géey ci Petit Mbaaw salaamun waaye mustafa Cissé ci Kaolack la nekk ñu ne ko salaamun Ibrahima Cissé bi nekkoon ci Walfadjri te nekk mu nekk groupe Futurs Médias salaamun coow nag ba àgg almamlakatul arabia saoudia fekk fa jibril Diop ne ko ah almamlakatul maxribia ngeen baal ma fekk fa jibril Diop ne ko salaamun ibrahima ñang ci vigo ci Milano Salamun kon Milano Issa Bey Ndongo Ndiir Samba Sey yéen ñett ñëpp salaamun salaamun yooyu nag moo daal dellu siwaat ci studio bi fekk fi alxaaji Mbàkke si la ne ko salaamun salaamun yaa oustaz tabaarakallaahu bisimilaa tafaddal mashkuran fa jazaakallaahu xayran fa jazaakallaahu xayran jërëjëf oustaz jërëjëf ci nuyoo yu am solo yooyu namoon nañ saalif nag ah, saalif nag sunu gan gi <laughs> waaw mi ngi nii toog de <laughs> tubaarkàlla indi yëfi ndaw ku ndaay waaw waaw boobu ngay wax ci guddi gi de am na ci boo xam ne moom laa dalaloon waaye daal keroog tubaarkàlla dégg naa leen ah, <laughs> ah dégg nga ñu <laughs> tubaarkàlla gaa yi dinañ ko nekkati mënoo indi yëfu ndaw ku ndaay donc am na yeneen yoo man tubaarkàlla <laughs> ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax ndeysaan ñu ngi nuyu suñu mbokk mu leen nag euh, tubaarkàlla ci euh, wax sa xalaat waaw ki mo ki Mamor Dia Mamor Dia Mamor Dia ndeysaan ñu ngi koy bëgg baax a baax mu ñuy ñaanal yàlla na nu dal amiin yaa rabbal amiin ñu ngi ko dal jërëjëf lu mu xat-xat bu duggee rek mhm, mhm. deux minutes yi ñu koy may danañ ci danañ ca sàkkal dëgg la ñaanal ñu ñaan yoo xam ne ca xolam la koy tibbee dëgg la ndeysaan noo ngi lay ñaanal ñun tam mhm. daañ la gane si nag incha allah ndeysaan daañ la gane si ñun ñett ñëpp ayca kon Mamor waajal Mamor waajal waaw <laughs> ndeysaan bisimilah loolu xam naa la ci kontaan moom soppe la ndeysaan yàlla ku bëgg lu baax la mënu oh, oh, fa wees ndeysaan incha allah tubarkalla jërëjëf na ngeen def ak coono yi noo ngi góorgóorlu naka sedd bi waaw sedd bi de moom suñu Mbàkke <laughs> xëy na lu nu jege rek nu sol ko. déet waaye waaw ah, noonu daal noonu lañ koy fajee lu nu jege rek nu sol ko. ndeysaan. lay ndeysaan. ndeysaan ah sedd parce que fine bu fekkee affaire bi àgg na ci ay 18. ndeysaan mu ngi bëgg a sedd si. tey waaw Hmm, waaw loolu la de. walaay ndeysaan moo tax daa mel ne gëj na fee sedd nii daan na sedd waaye du àgg fii. waaw dañoo wax ne nawet bi nu mu tawee rek. noonu la sedd bi ñëwee. ah bu ndox mi baree sedd bi day. métti bu ndox mi baree sedd bi day bari loolu la way takk yi wax. est waaye ñun de àgguñ ci day am glace ak yooyu may dégg bitim réew. <laughs> maanaam booy pëndox boobu di wàcc. waaye seddoon na fi baree xar waaw de. mil 2002. waaw. Mhm. seddoon na fi de baree xar yi. Mhm, mhm. Hmm. yàlla bu ñu àgg ci booba nag. amiin yaa rabbal aalamiin xaw naa sedd. amiin yaa rabbal aalamiin waaw. Oustaz na ngeen def ak coono yi. waaw ñu ngi góorgóorlu baax a baax sëñ Mbacke. naka réew mi. réew mi de mi ngi rek. mi ngi riir <laughs> ah? réew mi de ngi riir rek. ndeysaan. Eh, riirul ci jëf waaye mi ngi riir ci wax. ñu ngi wax rek. Mhm. xam mhm. fekkoon wax dana doxalum réew de. Mhm. mooy raw réew yëpp. ndeysaan mi ngi mi ngi wax rek. ndeysaan. waaw Euh, am na solo oustaz loolu day tuwarkaal <laughs> maanaam daal bu fekkoonte ne wax mooy tax am réew avancé moom jàpp nga ne menn réew du ñu raw kon kay nooy raw réew yëpp ndax débat yeeg yooyu yi nga xam ne moo am daal waaw rajo bu ubbi débat la télé bu ubbi débat la quartier boo ñu dem débat yaa ngi fa mhm. grand place yi débat yaa ngi ca mhm. station yi débat yaa ngi ca mhm. mu daal foo dem rek ña nga cay yëf nga xam ne fi mu ne oustaz bu ñu doon defal Sénégal di ko defal bilan wala ñu koy natt di natt diggante 1960 ak léegi da ngay gis ne kon fi ñu toll nii waroon nañ koo weesu wala fi ñu toll baax na. maanaam fi ne fi ñu toll nii. Hmm. war nañ ci am juróom. juróom yoonam. juróom yoonam la yor na am. Hmm. waaw. déet waaye de. lu tax nga yaakaar euh, maanaam lu tax jàpp ne waroon nañ fi am juróomam maanaam dox bu yeex boobu loo maanaam maanaam loo jàpp ne. moo ko waral dox bu yeex bi wax ju bari jee ko waral. wax ju bari ji mais wax ju bari ju sax xanaa dabuñu dafa doon loo xam ne ñun dañ ko maanaam ñun ak moom ñoo mas a ànd wala daf ñoo dab. waaw xam nga comme ñun poète lañu. Hmm. <laughs> comme ñun poyet lañu. poyet poète moom wax lay ëppale ci jëf. waaw ah, dëgg la. dëgg la moom alxuraan dafa wax benn saar wax ne. Hmm. Euh, poète la ko tudde hmm. ashuara. ndeysaan. waaye daf caa wax loo xam ne daf ne. Euh, alam tara annahum fii kulli waadin yahimun waaw. wa annahum yaquluuna maa laa yafaluun gis nga baatu yaquluuna maa mm-hmm. laa yafaluun dañuy wax waaye duñ ko def dañuy wax duñ ko def waaw lu tax nga ne ay poète lañ ndax li Senghor waxoon ne ñun ay woykat lañoo yooyu wala est-ce que du loolu dégg wax ak mën a wax ak jub ay wax a tax mu wax ko ba tey lu mu ci mën di dem rek moom yaquluuna rek la wax waaye maa laa yafaluun léegi léegi oustaz poète aw tàgg la wala waxas la euh, d'une part baram euh, xas waa ëpp tàgg wa ndax dafa caa teg ni illa lazina amanu Hmm. lu dul lu dul ñi mën a. suara googu maanaam poète la ci jublu. <laughs> moo yóbbaale taalif yéeg yëpp wala woykat yi la ci jublu. maanaam kundung kundung yeeg yooyu taaxuraankat yeeg taalifkat yeeg. woykat yeeg <laughs> tabarkàlla ñëpp a nga ci biir. ndeysaan. waaw est-ce que ñëpp a nga ci biir. est-ce que waaw. tabarkàlla xam naa ne moo tax nee na. Hmm. ñi leen nar a topp ci pénc mi ñoom it ñooy ñi nar a rep roppi seeni gopp. Hmm, ñu nar a roppi seen gopp. ñoo leen nar a ñoo leen nar a toppi. ndeysaan wa shuaraawu. Mhm. yattabiuhum waaw yattabiuhum. alxaawun. alxaawun tey. ñu nar a sànni seeni i gopp. Mhm. ñoo ñoo leen di toppi. Mhm. est-ce que. waaw ah, am waaye yàlla na yéene waaye alam tara annahum fi kulli waadin yahimun xanaa seetlu leen leen. xur wu ne mën nañ faa nekk. xur wu ne nag. ndeysaan waaw loolu tam warta warta doon jikkoy politicien waaw nga xam ne xurwu ne mën nga faa nekk mhm. ndax boo boo xasee jël benn benn benn benn do benn kii benn idéologie benn idéologie mhm. mbàkke lu mhm. adduna naqari naqari naqari boo doon reere keccaxit nekk ci idéologie boobu rek waaw da ngay da nga cay nangoo wéet dund ci coono yi ca nekk lu ko mooy rek nga nekk nga bokk ci fii kuliwaadin kon fii kuliwaadin yahi moon mooy da oustaz Sall koo xam ne day nekk aw xusmaa ñàpp rek lu jóg yóbbaale ko jeex <laughs> nit xur xur wu ne man nga faa fanaan. te kon nit dafa war a am foo xam ne danaan man fii laa féete. rek waaw lu fee xumbati xumbati it gannaaw féetewu fa rek man féetewu ma fa. jeex na tàkk ak loo mën di am rek nga nu mu tëdd. teel xuraan. waaw xam naa oustaz loolu lu xóot la. waaye li ma wax ne diggante bañ amee indépendance ak léegi bu ñuy xool ndax ñu ngi dox ay jéego oustaz loolu. sax daf maa rëcc ma wax ko waaye dooy na sëkk ab aw waxtaan. waaw ci buñ koy natt ci ay tomb tombaan. maanaam ci yi composé réew mi. ndax oustaz tey bu ñu xoolee ci état dañ naan ah ñun kat avancé nañ nag ndax wax dëgg yàlla léegi gis nañ euh, xeetu tabax yi dëkk bi avancé na dëkk bi nangam na bañ jàpp ne ñoo ngi dox moom nañ fi suñ bopp wala da ngaa jàpp ne doxin woowu dafa yéex. Euh, lool. <laughs> Hmm. xam naa bu bu doon suñ Maodo Faye dox doxinu ko ak tar. waaw ndeysaan. doxin wi yéex da. Hmm. li tax sunu doxin yéex nag. Hmm. te it boo muytu day gën day day continuer yeex mm-hmm. mooy ñun ci làkku jàmbur lañuy ñuy gént mm-hmm. ndeysaan gént ci làkku jàmbur waaw parce que suñu développement yëpp ñu ngi koy jàpp di ko natt ci làkku jàmbur ah loolu metti na waaw jàmbur booba daa dem ci làkkam émerger mm-hmm. ñu bëgg a ñun tam ca aw làkkam moom te loolu yàlla muyu ko kenn wallaay daf du lu yàllay maye waaw Cheikh Anta Diop joo jooy na ko fii ba génn àdduna. Mhm. ñu tu ñu jël université bi tuddee ko ko. après <laughs> ndeysaan waaw. lu rek la. Mhm. kon li ñu tënk da cee bokk làkku jàmbur bi ñu làkk. ñu tënk daf cee bokk làkku jàmbur bi ñu yor. maanaam ci misaal tey bu ñu takkoon làkk yi ba mu jekk ne saako delloo ko seen i borom bu boobaa lan la ñuy làkk. wala bu ñu làkkee wolof baax na bu ñu làkkee séeréer wala joolaa baax na. xam nga yooyu ay làkk la yoo xam ne ay làkki làkki làkki xeet la waaw war nañoo am làkk woo xam ne moom ñu tënk ñun ñëpp doon càllale gi buñ ca noppee ku ne làkku làkk ko ci jël dem ñun boobaa turkee nga ne di làkk bu boobaa utax loolu danañu doyub liggéey de ndax fi ne réew mi tey boo nee olof am na ñoo xamante ne dañ naan la lool du làkk maanaam ñoom tënkuwuñ ci loolu nga ne pulaar loolu am na ñoo xamante nii lañ ko jàppee nga ne séeréer am na nuñ ko jàppee mbàkke jàppoon ne ñu tënkuwoon ci français gi te suqali yooyu itam baaxoon na tënku ci français gi te suqali daa munta nekk kon mais kon il faut ñu ko ci benn bàyyi ci gis nga turki mii hmm. arab lañ noonu làkk mhm. ndax la du gën a xaraje génn waaw dañu xëy xëy takk ko ci saakom jëkkër yët ko yët ko arab yi daal di jël seen was mo léegi fi nekk nii koy tabarkàlla jël seen was hmm. waaw internet baak école yaak université yaak bërëb yëpp fi ne seen seen làkk waa nekk mhm, mhm. réew mu leen jege woon raw nañ la mu leen rawoon dab nañ la. da jàpp ne développement làkk bi daf ci am aw yoon daf ci am wàll. ngir ñu développé waaw. xam nga ne fi ne ci réew mi. Hmm. trois treize pour cent yi xamuñu ko ci ci Sénégal. Hmm. mais loolu peut dañ koo jàngalewut oustaz defaluñ ko promotion waxtaan. mënuñu waaw léegi bu doon bu doon ci benn làkk suñu làkk yi du jar jàngale. ah <laughs> na waar de xam nga oustaz léeg-léeg borom xam-xam yi. xam nga dafa lay dafa lay faral di léebal. Ah, waaw waa ji defoon waaw. ñëw ci miir ba saw ca. <laughs> waaw ñu ne ko ñu ne ko dañu bañ ko fi saw. waaw <laughs> xanaa liiroo liñ bind ci miir bi mu ne lan. mu ne ko ah kay. Mhm. da nga mënut jàng mune ne bañ a mën a jàng. Mhm. kon liiral li ci miir bi mu ne saa faal faal am na oto. <laughs> loolu lañ bind ci miir bi dañ siy bind ci tubaab dañuy tere ko fi saw. waaye moom noonu la ko jàppee moom. nee ma lan. waaw moom mu ne saa faal faal am na oto. li nga bëgg a wax mooy am na lu ñuy tere. bind ko mbind mu rëy ne dañ koy tere. waaye nit a koy moytandiku sax te te du mbind mee tax ndax xamul liñ bind lan la. jeex na buñ ko waxoon ci làkk yu mu dégg mu gën koo jege. jeex na mais sax borom xam-xam yi dañuy wax ne làkk làkk amul frontière maanaam làkk moom parce que tey fi mu ne ni nit ki di gëstoo ci arab ba doon borom xam-xam nit ki mën naa koo jaare ci buntu français ba doon borom xam-xam nit jaare ko ci buntu anglais ba doon borom xam-xam nga xam ne làkk bi jumtukaay rek la est-ce que ko déggee noonu man naa war naa mën a doon frein ci ñun pour ñu développer. waaw daf ñuy freiner pour ñu développe hmm. daf ñuy freiner. Hmm. kenn du gënt ci làkk wa namput kenn du développer ci làkk wa làkk wa làkkut. Hmm. réew mi fi li fi làkk tubaab. ñaata pour cent nga ko jox. li ñu des lépp luy dox duñ ci xam dara dara dara. ndeysaan dañuy dox rek. ndeysaan yàgg ci biir réew mi ñu ngi fiy tere dara te xamu ne dañ koy tere. Mhm. ay loi nga fi tënk la xamu ne loi daf la tënk. Mhm. looloo tax nag fi ne ci penc bi nit day def dara nga def ne kii. day mhm. tay taylu. fekk na xamut xamu ko xamut li ko ci mën a fekk. jeex na. bu demee ba ba taxaw ci kanam yoon rek tàmbalee réccu nag. ne xamee ma ko woon nii wala nangam wala nangam. ba di mën tey fa ñuy àttee fi nekk nii da ngay ñëw ñu ne ñu ne eh, ñu wax la ci tubaab. waaw eh, taxawal nga waat. Mhm. benn waay ne la nga waat. nee na nga waat. Eh, lu tax du la wax waatal. ah non langue langue officielle bi mooy français moo tax. léegi suñu assemblée bi fi nekk nii léegi lañ fay làkk wala fa sax bu njëkk. Mhm. làkk wala fa sol xaftaan. ndeysaan ak sa mbaxana ak kaalaw. Mhm. loolu kenn sañu ko. ndeysaan ah booba de moomuñ ko. Ah. waaw bu dee daal maanaam pencum ndaw réew mi la waa réew mi war faa nekk. Ah. moom war nay saf réew mi ci boor yëpp. jeex na waaw grand bu bëgg euh, demi saison xaftaan yëpp a fa war a ñëw. waaw mu réew mi daal te te ku jóg ne mbokk yi salaamaaleykum. wala o fogole o fogole séeréer mi xasim nan <laughs> waaw <laughs> ndeysaan am na solo oustaz oustaz ci wàllu actualité laay dugg ginnaaw ay bis ñu ngi doon waxtaane alxames ne tey ñëw gi nga xam ne moom la fi njiitu réewum France ñëwoon mhm. moom de ñëw na ba ñibbi xam naa li naan mbambu réew weer rek moo amati mhm. coow nañoo coow waaye ñëw na ba ñibbi mhm. gis nga àjjuma ñu yendu fële ca saal bee ñu tudde Abdou Diouf ca jam ñaajo waxtaane fa lu jëm ci njàng mi Euh, waxtaane fa itam lu jëm ci wàllu ba mu demee ndar ci wàllu nan la ñuy defee ba puus géej géej euh, dëkkuwaay yi nga xam ne moo fa nekk ak yu demee noonu mm-hmm. boo ñu doon tënkal ñëw goog nga xam ne moom la fi euh, Macron ñëwoon noo koy tënkale waaw danaa wax ne mm. réewu France ñëwee fii mm. dafa am lu ñuy wut si mm-hmm. bu ñëwee fii ñun tam daa am lu ñu cay mm-hmm. mu am moom lu ko lu mu bëgg retombé yooyu mu am ko ñun tam ñu am ci retombé yooyu luñ ci am waaw lu rek la. Hmm. buy ñëw ñun dinaan ko indil ñu sëri ca. Hmm. bi na demee nii nangam ak nàngam hmm. mais moom buy ñëw moom tey day buuxante si. waaw. buuxante gi mooy soo su ma yëgee ne réew sàngam mi ngi fii teg tànkam. ak tànkam ak tànkam naa ñëw man tam ndax nu teg suñuy tànk. donc day buuxante si noonu nag ñu ne ko indaale ñu sëri waaw loolu rek la. ndeysaan daal ñu sëriñ. te ñoom de moom teg nañ seen tànk nee nañ ci économie bi daal li ci ëpp fi mu ne moom saf na lool français. Ah, waaw économie bi moom xam naa ne lu mu ñu indilit moom dana delluwaat ci njabootam ba mu jeex tàkk. yooyu yooyu day day bokk ci leen di a jóg. day na waar day na leen tax a jóg. Hmm, ah, <laughs> ndeysaan bu defee toog daal di xaar sëriñ si ñoom seen yooyu. lu tax ñun suñu développement yëpp ñu bokk ci réew yi ko bëgg jàpp ne ci bitim réew lay jógee wala ay bor la yu ñuy lebal wala nangam wala yi tax a développé daa amul ci réew mi. làkku jaamur yu ñu yor la <laughs> <laughs> Mbàkke <laughs> eh. alxuraan daa wax ne eh. ca ba muy dug ba ñuy dugal aadama ci aljanna ja mm-hmm. dafa na koon inna lakka mm-hmm. allaa tajua fiiha defal naa la fi loolal tee xiif mm-hmm. sëñ Mbàkke Sénégal gii mm. yàlla defal na nu fi lu nu tee xiif ci lu wér raison boo dem wax naa ko démb ci benn faar bu ma demoon fële ca lax benn émission bu ñu ma fa doon def loo may leen région bii di Kaolack nii yàlla def na fi lu mel ni xorom si fi nekk buñ ko exploité ni ñu ko war a defee xorom si yor na région bii yëpp la tàmbale ci Fatick baa bi ak si bi ci ci Kaolack am déet dëgg la li fi def ci gerte ci région boobu yor na yor na fa loolu ak neex a bay baag yañ fa war a bayee mais suñ Mbàkke bu fekkee réew dafa mel noonu ba noppi léegi nag jàpp ne moom développement mooy nga mën a làkk yor ay tabax ah quelque tëli hmm. du foofu wallaay te développement amul amul amul amul amul amul nationalité hmm. ñoom sax mi danja bi ñu ko jàngale dañ naan ne amul nationalité mooy daal dafa am lu ñu tuddee départu développement da ngaa bëgg a départ exploiter suuf si exploiter temps bi maandul ci li ñoore ci réew mi ñëpp bokk ci ñu dem rek daal di tegu ci yoon ndeysaan ñett yooyu rek nga dem. Mhm. am na solo. waaw am na solo oustaz am na solo lool ci tomb boobu jëm ci eh, suñu diggante ak eh, réew yi nga xamante ne ñoo ñu wër mhm. ndax itam dañuy yóbbu bu yàggee ci doo xam ñàkk gëm sa bopp lañ koy tuddee wala lu ne mhm. waaye nit daal day jàpp ne toog fii te tekki moom day um, xam naa daal lu xóot a xóot la oustaz loo xam ne mën na ci am. waaw fii itam. dafa am benn jafe-jafe bu ci nekk. léeg-léeg nit bëgg fee toog tekki. du dëgg. waaye yi nga yor. ñi fi nekk jël ko. waaw ñu fi nekk jël ko. waaw c'est-à-dire. léeg hmm. ñi nga xam ne ñoo la féete kaw. Hmm. di signé di ngay am. Hmm. buñ la koñee duñ la signeel. wala buñ la signeel nga ne xappit la nga yor jox leen. benn ñaar nga noonu. beneen bi mooy nga nekk fii. sa sa bàjjen wala sa yaay. ne diw mi mënoo ko ñàkk jël ci li ngay liggéey. ci diw moom a jàngul li ngay léggéey moom tam mu ñëw toog. wax ne yaay ma ko fi samp nga nga liggéey ba mu yàgg mën a ci xappit nangam mhm. ne tépp mhm. nga ne yaay dama ko yóbbu di dama ko yóbbu jik mooy la ah, kon loolu alal jëru ko lu yéeme ay gàllankoor luy métti lu yéeme la te ñun ñëpp a koy dund ci penc bi xam nañ ko. ndeysaan wallaay wallaay wallaay lu am solo la oustaz kon mi ngi noonu président Macky Sall ma nga woon gànnaar xam naa ci bisub démb bi. waaw euh, jëmoon ci xew-xew yi nga xam ne moo fi xewoon ci ay bis jee ñu génn. ci mhm. diggante nappkat yi nga xam ne ñoo dëkkee Gendar. Mhm. ak euh, ña dëkkee foofee ca Mauritanie ci wàllu fii la seen géej yam ak suñ gos fii la doore euh, loolu daal andi woon na ay ñol-ñol. ñee yebaloon ko ab délégation bu ñëwoon di indi seen ay xam naa leeral ak seenu waxtaan. yoo mm-hmm. xam ne waxtaanu biir néeg la moom nag sol naw dàllam dem fa noo jàngate loolu. sol dàll gi dem fa de moom lu lu rafet la. Mm-hmm. lu rafet la. Mm-hmm. bu demee waxtaan ak ñoom ci nañ téye seen bal yi. nañ bàyyi rey. bu ñëwee nag waxtaan ak nun waaw mu waxtaan ak nun nenu. yéen it bàyyi leen dugg ci frontière bu jàmbur parce que. Mbàkke mm. li ma la sànq ci wàllu loi yi ci pénc mi mm. ñun mën nañ ko ñàkk xam ah. ndax sunum pénc mm. du sanctionné du tere dara fii moom laisser la lu waay neex na ko def mais nag yeneen réew yi nag boo bu fa duggee noonu bu ko defee nu waxtaan ak waa ma gànnaar ne leen téye leen seen bal yi mm-hmm. daal di waxtaan ak nun nag ne nu yéen it nag fii lañ yem <laughs> waaw bu leen ko jéggeeti ndax réew mi bokkutug sunum réew mm-hmm. ñaari waxtaan bi daal bu ci amee mm-hmm. unsur a zaliman aw mazluman daan nañ koy doxal mm-hmm. te mooy yonent bi def na woon sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee dimbale ko saaba yi nag xam nañ de buñ ko tooñee waaye bu tooñee nuñ koy dimbalee mooy da ngay waxtaan ak moom ba ne ko Hmm. lii mooy dëgg gi del yem fii del bàyyi lii ndeysaan waaw dem gi nag am na solo lool hmm. ndax dana dana am lu mu jeexantal bu mu def ca hmm. ña faatule waaye dana am ci réew mi ci boppam te diplomatie amul fu muy yem lu am am solo la tarkal la kon ñu rafetlu bu baax jéego yooyu nga xam ne na ko waaw waaye itam oustaz a war a yokk itam suñu taxawaay ñun Sénégal rawatina réew yi nga xam ne ñoom lañ digalool daa mel ne léeg-léeg dama bu may seetlu xam euh, ko dana xaw a waaye damaa xamul ñun dañoo nooy wala liñ tudd réewum teraanga la wala lan la waaye daal dafa mel ne war ma jiñ jox réew yi ñu yi ñu dëkkal ñoom joxewuñu ko noonu ci boo seetloo ci wàllu jalgati lele yi am ci frontières yi nit ñuy traité boo dëkkee ci biir réew mi dëkk ko étranger wala yeneen ak yeneen loolu moom lan moo ko waral. waaw li ko waral mooy ni ci war a taxawee. bu desee ñu ñu féete kaw rek day feeñ ci côté bu nekk. Hmm. daa war a am taxawaay ci ñu féete kaw taxawaay waaw. Hmm. taxawaay boobu nun xam lu ñuy tere. Hmm. ku ne di moytuloo tere bu fekkee sunu mbir nu xam lu ñuy tere suñ mbàkke mm. foo dem da ngay demati def lu ñuy tere wax naa la ci Europe bi ñoom Bécaye seen di tàmbalee dem ak ñu Ibrahima Ndiaye la ci rek diw accidenté na faatu na am mm. déet ngalama la ci rek diw accidenté na faatu na mm-hmm. mm-hmm. mais italiens yi dañ daan daan def benn benn gëstu mm-hmm. mais ñii seen accident yi bari na lool daal di pang ngeen seen permis ya waaw ne léegi permis Italie mbaa doo dawal ana deega bu jeexu ci wàññiku na lool lool nag lool la loolu la wàññi ko. Mhm. quatre vingt quinze pour cent yi daanaka mën ngeen amatul léegi ci wàllu accident. Mhm. lu ko waral mooy danoon danoon danoon nangu permis gaaya ne leen nag suñ permis yi ku ko amul doo fi dawal. Mhm. seen permis duñ ko jox ko mun a dawal. déedéet jamono ñooy. fi ne boo fekkee foofu ci ci Europe benn sénégalais. bu boo bokk la nekk fii. da may xanaa kuy julliw. waaw ndax na muy dawale foofu du bokk. ci yeewu waxtu. Mm. dawal ba correct. ah <laughs> correct ci mbedd mi léeg-léeg ñu dem ci centre bu ñu fa defee conférence ba noppi. Hmm. balañ faa jógee danañ for këyit ya for kii raxas ko. ba mu set wecc ba mu ne boy. ndeysaan ah, mais mosuma gis loolu. kon ñoom dañoo am taxawaay ci loolu. waaw foofu ma taxawaay ci loolu kon ñu war leen cee roy. jenn waaye dafa ma ca hmm. laaj daaw jéeg. Hmm. maa ngi demoon fële ci ñoom euh, waa jooju ja. tubaarkàlla. ndeysaan dëkk bi daa xaw a sori. mu mu ñëw ci ci ci débat bi am ko ci bi ñu euh, conférence ba noppi. ku ne ma waaw yéen lu tax ku naan ceeb kopp rek daal di koy sànni mën na ko dafa gis ay moroomam. Mhm. kopp yi la <laughs> moo gis ni moroomam. <laughs> waaw wax nga dëgg de. naan naan ka kii ma gestu sa góos. Hmm. Dakar booy gestu rek seen seen moroomi kopp bi nga ngàmb. doo ko fa teg. ah kay ndax mbalit nga. waaw jeex na comme yaa ngi jaar ci kaw mbalit mi kay jërutul wër mbalit. jeex na. Mhm. loolu mu ne ma mu ne ma dëgg wér nga wax de. dëgg la ko mu ngoog. dëgg la ndeysaan am na solo oustaz jërëjëf ci tomb boobu ñoom Pape Demba mhm. jërëjëf ci tomb boobu nga xam ne ci leen toll di tukki boobu nga xam ne moom la président tukki woon ak tukki yi ko jiitu yëpp waaye bii lim taxaloo ak xew-xew boobu tax na mu am solo lool mhm. yàlla jàmm dox ci diggante ñaari réew yi moo tax nu sunum réew suñ bàkkee mhm. euh, muy président mii muy kii ko jiitu woon ak kii bëgg ñëw léeg-léeg dañ dul encouragé nit ci yim def ndax dañuy bañ ne dangaa far ak moom waaye dañu waroon. Hmm. keroog bi fi gaa yi bëgg a réñoo si mu ne déedéet. Hmm. loolu jar naa tàccu. Hmm. gaa yan la woon. Euh, franc yi. ah d'accord dañoo bëggoon a ñëw mun leen du ngeen ñëw. dañoo bëggoon réñoo si fii. loolu jar naa tàccu. keroog bi fi euh, bu buurub buurub Amérique ñëwee. ndeysaan. ba journaliste bi di ko laaj mbirum góor jigéen. xaw ma sax question bi lu ko fa indi woon keroog. waaw ah dafa nekkoon actualité. waaye waaye tontu ba jar naa tàccu. bu dem bu dem kii bi di jar naa tàccu. muy muy maître wadd nag muy moom mii muy kii bëgg ñëw muy keneen. ku ci def li mel noonu tàcc yi ñu lay tàcc dana tax da nga am fit wu dëgër bu ëllëgee da nga xam ne samay samay nawlekat ak samay mbokk ak ñi ma wër euh, li ma defoon yëg nañ ko. Mhm. su loolu amul nag. da ngay mhm. da ngay yox yoxi beneen yoon. ndax da nga naan jàpp dañu maa seetaan. wa shukran muy lu am solo am solo jërëjëf oustaz jërëjëf ci eh, taxawaay bu am solo boobu ak gendeeku yooyu nga xam ne moom nga indi xam naa léeg-léeg nag gars yi dañuy faral di wax ne terrain bi ñëw na du information waaw moo tax eh, daanaka waaw góor gi dañuy jàpp ne yenn yi da koo war a def taxawe ko léegi nañ eh, ñiy sulli di sulli yi nga xam ne moom la waroon taxawee te taxawewu waaw ñu ko daa toog ci wetu suñ Babacar Si daal ne ko matt wala àll jart nawe matt loolu la waxoon suñ Babacar Si àll jart nawe matt suñ Babacar Si ne ko ah, ndax àll toll na ni moom te amul mat. saan waaw dëgg la. àll toll na ne moom te amul mat àll toll moom te amul mat. bu boobaa de moom àll bi am mat. Mhm. nañ ko ci nañ ko ci gaañ. saan am na solo Oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu jërëjëf Oustaz euh, àtteeb euh, ki nga xamante ne mooy maire de Dakar fa Sall euh, dooroon nañ ko boobaak léegi dama ne woon ay bis gu jot rek fañ ca toll ñu seqi ab jéego jëm ci ñun tam informé ci mbokk yi waaye itam indi ci am njàngat mhm. ña ca nag fi mu ne. Euh, muy taxaw di waxtaan wala boog di waxante waaye daal xam naa dàggasante baak euh, yow du man ak demalante ba ak dikkalante ba bari na ca lool oustaz nooy jàngate àtte boobu bu dee yaa ngi koy topp. waaw maa ngi koy topp macha allah. Mhm. Euh, te gis ne ñu ngi ci fukki fan ak nangam. Mhm. ci wàllu àtte bi. Mhm. waaye xam nga sunum réew. bu ñuy àtte suñ bàkkee dañ dul xëy ñëw ci fond bi. déedéet. dañu am ay fan yu bëree baree baree bëri. yoo xam ne duñ dugg ci fond fond dossier bi. ci forme bi rek la ñu nekk forme bi rek ci la nekk. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. war nga ko fee woo waroo woo yow xaalis bi moomu leen ko nangam ci la ñuy nekk ba def ci lu baree baree baree bari loolu mm-hmm. ñëw ci fond bi. fond bi nag bu ñëwee mën nañ yem ci fee yi te bañ a wax ci waa ji. ndax koo ne sa bopp bi daal takk suuf ma lay yow sa bi daal takk suuf. bu ngeen taqantee suuf léegi tey coole na ñollu dëgg la de foofu nag lañ toll fi nekk mhm. waaw mhm. waxante yooyu mën na cee ñàkk mhm. Euh, moom xalifa ci boppam oustaz maanaam kàddu gi nga xam ne nee nañ moom la njëkk yëkkati ngir wane ne daal prisonnier politique la rek moom politique a tax ñu jàpp ko euh, du ay def-def yoo xamante ne moom la def ba sax ñi nga xam ne ñoom lañ ko jàppandool ñëpp nañ leen bàyyi te jàpp ko moom ndax euh, moom lañ soxla loolu man jàngat nga ci am waaw xam nga nit su àndeek nit yàlla def nu boole leen teg teg loxo te loxo ba teggi koogut te yaa leen yilif wala boog yàlla leen yilifoon boo ñëw ci barab bi sàmm teef ga du wàññi dara waaw bàyyi la leen ñibbi te te ma des fi man mën naa koo lay li mu wax ne prisonnier politique la nag noo ko gisee ah, loolu de penc mi penc maa ngi koy wax hmm. waaw penc mi dañoom ñu ngi koy wax hmm. ña koy àtt na ñoom duñu wax loolu Mm-hmm. penc mi nag loolu la ñuy wax. kon ñaari xaaj la ñenn ñi jàpp ne politique la tax ñu jàpp ko ñenn ñi jàpp ne du loolu. ndax bu ñuy waxee ne politique la da koy niru. Mm-hmm. ni mu koy niroo mooy lu xew ba lii am. Mm-hmm. ndax dossier bi mu njëkk dossier yi. ndax amul yu ko jiitu. ndax ak amul yu yu yu yu gën a charge dossier bi. loolu foofu boo ko fi gaay nattee. daal ne politique la. bu ko gars yi nattee ci wàllu àtte wala daana ñoom politique dañuy àtte. lu tax nga jël nangam. lu tax nga jël nangam lu tax nga jël nangam donc yi mel noonu. bu ñuy waxee sëñ Mbàkke. mel na ñoom la bu ñu wax mel ni ñoom la. waaye daal ñaar yëpp moom penc maa ngi koy penc maa ngi koy wax. waaw walaay ndeysaan. am na solo de euh, léegi ñaar yooyu penc mi wax oustaz tey boo doon analyser ñaar yi di xool maanaam mi lan lay gën a xeeñ ndax ndax ndax daal kii politique a tax ñu jàpp ko wala dañuy saytu mbirum yoon la rek yoon lañ topp daal ba tànk bi dugg këram waaw bu fekkoon dañu nekk or antenne. waaw hmm, <laughs> naa la wax bi gën a xeeñ. <laughs> boobu danga ko bëgg a denc orange. waaw waaye. Mhm. li ma xam daal mooy ñaari analyse yëpp ke benn bu ci nekk nit ñaa ngi koy def. Mhm. waaye ci hors antenne naa la wax ne la. Mhm. bii la gën a xeeñ. incha allah d' accord am na solo oustaz jërëjëf euh, xam naa sax euh, danaa sori foofu waaye duma ma ko génnagoon lool mbirum xalifa moomu. ndax damay dégg benn jàngkat maanaam benn jàngatkatu mbir. dégg di ci def ay chronique yu demee noonu. waaw indi ci ay wax yoo xam ne day wane ne daal xalifa li waral dosi bi yëpp mooy ñàkk a Euh, li président bëggoon te mooy jàppale ko ba mu am deuxième mandat. Mhm. ci waxinu kooku. Mhm. léegi bu fekkoon nangu na ko mbir mi du àgg foofu nga xam ne tey jii fi ñu taxaw di ko àtte bu doon tey ci guddi ga daa wax ne damaa bëgg gis président. gis ko ne ko nangu naa li nga bëggoon boo moytuwut nañ doon def ay coono ngir tëj ko noonu la ñuy defee ay coono ngir seetal ko. Mhm. oustaz bu mbir mi demee noonu ban njàngan nga ci yam waaw mbir mi de su demee noonu. Hmm. mooy la wolof daan wax. Hmm. ku yàlla fal. Hmm. boo wutee pexey toog. sam xel ku yàlla fal mm-hmm. nga nekk yow ci pexey toog mm-hmm. moom mi la fal mm-hmm. dana la dana la wutal pexey toog boo wutee pexey toog nag ba tax nga nga wuti wàllu ku la wàllu wut nga dóor ko weete ñoom seen yooyu su demee noonu moom du baax sëñ Mbàkke woote woote demee noonu li mu war a demee kay mooy wut sa programme bu baax wut sa politique bu rafet ah wut sa doxalin wu jaar ci yoon woo xam ne ñi la fa lool ñi ngi fi li leen doy bu la doy bu leen doy nu falaat la mhm. loolu kenn mënu ci dara dëgg du dëgg saa bu wutee wallu feneen nag bu jàpp ne ku ma wallu wut mu duma la hmm. su boobaa léegi ay pexe lay am te pexe yooyu moom ñàkk ko ñàkk ko wut moo gën wut ko hmm. Hmm. waaw ñàkk ko wut moo gën wut ko ndax tuutil mulka man tasaa baat ba ca des mooy wa tansew dëgg la lu waaye man di yor ci nguur mbàkke yàlla du ko jël daf koy foqar ci dëgg la waaw foqal ci nag ku téelu dëgër lañ koy def mhm. waaw dëgg la kon kuur gu ca nekk ba ngooy ca itam bu yàlla ñëwee bu ko bëggee laa ilaaha illa doyu ko mu xëy da koy foqarti doyu ko mu xëy mu ngi noonu kon ñu ànd topp ko rek moom itam ab actualité la bu ne ci penc bi di ñaan borom bi mu ndox mhm. mu sedd guy waay <laughs> ndeysaan la mhm. te lépp doon lu jig réew mi yàlla na ko def insha opposition bi nee nañ dañuy marche oustaz bu ëllëgee nga xam ne daal euh, xam naa taxawaay bu jëm ci wàllu fichier électoral baree baree bari daal boole nañ ko taxañ ne danañ wàcc ci terrain bi jàmbat ko euh, nooy jàngate marche boobu ñuy wa ñuy ñuy yoonal waaw jërëjëf ci laaj bu am solo boobu hmm. gis nga li ñu tuddee élection hmm. maanaam léppam daa wala leer ñëpp hmm. yet du jóg ñol ñol du jóg yéppam daa wala leer ñëpp su ko defee yet du jóg dara du jóg mm-hmm. bu ci amee lenn lu ñugg ñuggi loolay ñugg ñuggi mm-hmm. mën na indi fitna mm-hmm. mu tax kon muy ñi ci pouvoir bi ak ñi leen opposé ñoom ñëpp war nañoo mën a tiim taabal waxante ci ay bët waxante lu leer ñu xam ñi bindu ñaata lañ hmm? dëgg la ñi am carte électeur ñaata lañ du dëgg ñi jot seen carte ñaata lañ ñu jotul ñaata lañ ñu jotul lu tax jotuñu loolu nu bokk ñun ñëpp. Mhm. ndax loolu du nekk avantage su ki ne ci ngóor gi. Mhm. du nekk avantage su kuy opposé. Mhm. lii avantage daal mooy lépp leer. ñu xam lu ne fa mu war a tege ba noppi teg ko fi mu tege. Euh, indi leen. su boobaa jàmm na ñooy. su dul loolu rek fi ñuy mujj mooy ñool-ñool ak sàcc nañ élection yaag. nga xam ne mën ngaa gañe ba noppi ay wax ji tege ci ginnaaw gañe la dëgg la te loolu nag doon lu gën ci réew wallaay li ci gën daal mooy nun ñëpp nu ànd mm-hmm. xam ne kaggu gi ñuy bind ñuy wate mm-hmm. nangami ñetti ca nekk mm-hmm. ñi am carte électeur nangam lañ toll ñi am carte d'identité nangam lañ toll ñu jot nangam lañ toll ñu jotugut nañ dem barab sàggam jot ci carte yi jàpp daal bu ñu ko defoon jàmm nañ yooyu sëñ Mbàkke mhm. information yi jàll ci ñëpp ñu yëg ne seen carte ma nga barab sàngam waaye xëy dem ci ma xam mbaakul ñu ne nekku fa nga jóge fa daal dem euh, ngaay meex ñu ne nekku fa mhm. nga jóge fa dem déende ñu ne nekku fa mhm. léegi su boobaa da nga bëgg a tëdd rek toog donc loolu daal bu leeree naññi marché yeeg ñoom seen yooyu bu fekkee loolu tax ñuy marché marché moom ci réew mi ku ne sañ na ko ndax da nga yëglu ne maa ngi dem ñu wutal ñu la ñu la aar mhm. nga dem doxi ko te ñëw mhm. wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz jërëjëf ci tomb boobu ñoom itam ñoo ngi leen di xaar te di leen may nopp xam naa bu fekkee lu yittee réew mi rek a tax ak jàmmi réew mi moom ñu ñaan suñu borom àggale ko jàmm te lépp rek doon loo xam ne suñu njiglaay lay doon incha allah xalif général de Mouride oustaz woote ne ñaareelu wooteem ginnaaw bi mu toogee ci xilaafa gi ak léegi mun Muntaxa mhm. dajale borom xam yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk ba ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy njaboot gi wax lenn ci ay yéeneem yoo xamante ne moom la am eh, ci ak ayam bokk na ca loolu oustaz mooy fas yéene taxawal daal e, e, université wala ab jàngukaay bu mag a mag a mag boo xamante ne nii dootuñu jëggaaneeti jàngukaay yu mag yooyu ca madinatu madinatul munawara mhm. wala ca Égypte wala ca Kuufa wala e, réew yooyu nga xam ne yëpp daan nañ fa jàngee noonu la ko waxee mhm. nooy jàngate taxawaay boobu waaw àggale naal boobu nga xam ne sëñ Abdul Ahad cay jamonoom la ko tàmbali woon naal mhm. xalifa yu ku ñëw teg ca birig moom bi mu ñëwee ne dana fas yéene àggale birig boobu loolu war naa mën a nekk ndax mboolem asaate sa yi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew di jàngale xam-xam yañ yor si di ko jàngale ay xam-xam a ngi fii yoo xam ne toll na noonu te mën nañ koo jàngale waaw ay xam-xam ngi noonu yu noonu te mën nañ koo jàngale yitte ji buñ ko joxee yitte ji rek comme barab baa nga fa université baa nga fa jàngalekat yaa ngi fi Euh, ñi bëgg a jàng ñu ngi fi. Mhm. loola lu war a man a nekk la. Mhm. te itam dégg naa ko ci déclaration am mu ne liñ doon def lépp doon ko jàppale ñu fi doon nekk ay waajaay la woon mbir maa ngi door door yal na yàlla jàppale ko ci loolu nag euh, jàppale ko ci université bi nga xam ne luñ bëgg a jàng ko faa jàng te doon ko jàng bitim réew du dëgg mhm. loolu daal am na solo lool mhm. ñëpp ci ñëpp ko ñaan mhm. ñëpp ci wax viiw ñëpp ci dàpp wala boog ñu bëree ci d'accord ndax loolu lu mën a nekk la sëñ Mbàkke lu mën nekk la oustaz jërëjëf kon loolu mooy tomb yi nga xam ne moom lañ doon jàngat tey nekkoon euh, xibaaru daara ji ak yi nga xam ne moo ci aju aju 23h jot na ba teg ñaar fukki simili xam naa dama lay delloo kàddu gi ci kanam tuuti ñu dalal suñ gan ñi. bi leen toxal seen ak déglu fi ñu jëm lu ñu fa yàgg. طلائع الشباب هلموا هلموا أقادر السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب يا إخوتي ngeen jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo 23h moo teg jot ba teg 22 minutes Hadj Mbacké kon ni ñuy def mooy li ñuy def oustaz mooy dalal suñ gan ñi nga xamante ne ñi ngi nii toog ci biir jotaay bi oustaz Cheikh Guèye ak euh, oustaz Makhtar Sakho ñoom ñaar lañ war a séqal jotaay bi waxtaan ak ñoom oustaz ci xam naa lu xew-xew yi daara yi ak yi nga xam ne moo ci aju rek incha allah oustaz yow lañ njëkk a jox kàddu gi nga nuyonteeg way déglu yi bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu leen di nuyu di leen ziar. Mhm. di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala yàlla defal leen tawfiq ci seen liggéey bu rëy bi ngeen nekk. Mhm. Eh, di nuyu sëñ Mbàkke moom sunu xarit la. Mhm. te yaay sababu ñu xame rajo bi tey ñu ngi ci soog a dëgg suñu tànk waaye mooy sababu ñu xamee. li tax ñu xamee. mooy émission bii. kon nag ñu am mbégte lool ñu dalal ñu ci émission bi nga xam ne depuis deux mille un euh, la ñu xamante ci ngir émission bi. wallaay euh, kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi bu baax nga taxawee gën a mën a taxawee mission bi nga xam ne ci moom nga nekk. alhamdulilah mhm. ñu ngi nuyu auditeurs yëpp ci kanam incha allahu taala. Serigne Makhtar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. jegeel sa micro nuyo salaamaaleykum wa rahmatulah yaa Oustaz. Mhm. Uh, alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala Oustaz Alioune Oustaz Mbacke ñu ngi leen nii bu baax di leen sant ci dalal gi. Uh, di jël suñu nuyoo di ko teg sa loxo nga di waxal ñu ko borom kër gi ak ñu koy jàppale ci liggéey bi yëpp. di nuyu mbooleem koo xam ne mu ngi ñuy déglu ci waxtu yi. incha allah. jërëjëf kon suñu Mbacke xanaa la ñuy wax rek uh, sëñ Cheikh. Mm-hmm. lu doon seen tànk ci rajo Sud FM seen rajo ci albidaay ci waxtu wi. Euh, alhamdulilahi rabbil alamin oustaz euh, euh, li tax ñu ñëw fii mbir la mu am solo te mooy mbiru daara jee di rux kooki nekk fële ci njaareem yàlla def ma nekk ci bopp daara ji ñuy waajal bés boo xam ne nag bés bu mag la bis boo xam ne ñi nga xam ne ñoo génnewoon ci daara ji ñoo koy taxawal at mu jot yow doo gan ci bés ba ndax yow yaay soo amul benn ngant mhm. yow yaay ki nga xam ne yaay taxawee bés ba te nit ñi di am mbégte bu baax a baax ci ni nga koy taxawee mhm. Euh, loolu moo ñu tax a ñëw tey ci mbiru daara joojee ak mbiru bés boobee. Mhm. loolu daal moo ñu tax a ñëw tey fii ci euh, defee mu seen rajo incha allah taala. Mhm. sëñ Mbacke. waaw kay am na solo oustaz oustaz Cheikh jërëjëf ci nuyoo yi jërëjëf itam ci bis boobu nga xamante ne moom nga junju muy euh, daara ruq kokki. Mhm. oustaz xam naa bala ñoo gën a avancé ci loolu ginnaaw bi nga ñu leeralee li leen tax a jóg ruq kokki moom mooy lan. jërëjëf sëñ Mbacke <laughs> xam naa su ma ne maa ngi nuyu Serigne Makhtar Narlo ca kokki hmm. da xam. <laughs> fi ma jëm soo déggee tur sa xel dana am lu mu la jox hmm. te mooy daaray kokki ruq kokki ab daara la boo xam ne daara ju mag la yoo xam ne mu nga sampee fële ci njaareem quartier Thierno Kandji e, ci quartier bi ñuy wax cité basse hmm. e, muy daara joo xam ne mën nañoo xam ne benn banqaas la ci kokki ndax li waral loolu mooy ñi ko sampoon 89 ñoom sëriñ Aboubacar Diallo sëriñ Habib Ka ñoom ñooñu kokki lañ jànge mhm. jóge woon kokki toll ci fanweer ak juróom-ñaar wàcc njaareem euh, sëñ Basiru Siise dalal leen ñu ngi koy nuyu bu baax moom itamit ak njabootam ñoo fa nekk rahimahullah mhm. ndax moom yàlla euh, jël na ko mhm. waaye ak ki nekk xalifa tey mooy sëñ Abdul Ahad ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ndax suñ jëwrin la euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax kon loolu mooy daara Ruxu Kokki di daara joo xam ne daara ju mag la samp depuis 89 euh, di dox bee euh, bis bisu tey bii. ñuy mm-hmm. ñaan yàlla yàlla gën ko ma maanaam def mu doon daara juy wéy ba keroog yàlla di leem dëndam bi. incha mm-hmm. allah taala loolu mooy daara wax kokki ci gàttal. Mm-hmm. jërëjëf kon suñ la déggee tontu li mooy daara ji ay nit ñu bàyyi koo kokki ñoo ñëw njaareem sanc ko fa. bàyyi da koy tuddee ruq kokki muy tekki ne ab ruq la ci kokki mm-hmm. ah oustaz loolu lay nuru <laughs> laaj bi am na solo tontu bi am na solo ay ci jërëjëf uh-huh. kon xam naa dañuy daal di dem ci oustaz Makhtar Sakho mm-hmm. oustaz Makhtar balañ laa jox benn laaj laaj yi ñu jot laaj sëñ Seex te nga dégg ko ndax am na loo ciy dolli waaw comme gën a leeral rek comme li nga wax ne ay mbo ñu jookoon kokki mm. maanaam ña fa jooy yàlla dogal la ñu saaloom lañu dëkk mm. nekkoon kokki mm-hmm. gannaaw gi nag sabab bi ñëw tax ñu bàyyi ko fa ba ñëw ruqoo kokki ñëw njaarim comme ni mu ko waxee sëñ Basiru si sa dal leen mooy mbooloo mu jëyee kon kokki la waaye nag seen cosaan dañoo ñëwoon njaareem jàng si waaye dañu wala wala dañoo ñëwoon njaareem ubbi si fa daara waaw dañoo ñëwoon njaareem jàng si pour ubbi fa daara ñoroon ñëw ñu am na ñu ci mokk la ànd ñu doon jàngal hmm. mu mel ni yow moo bàyyi koo fii rek say daara wala say ndongo ci daara comme li nga xam ne mag ñi dañuy jàng ba nekk ci daara ba ci kanam nga bàyyi ko fekk say gone yoo xam ne ci sa gannaaw la ñu nekkoon yaa leen doon jàngal hmm. wala say mag lañ wala ci sa ci yow lañ aju yow it yaa nga aju ca daara ji ñooñu ngay àndal nag dem toxul waar fere gën a yaatal daara ji. am na solo jërëjëf. tarkalla loolu leer na oustaz. waaw léegi bi ko ñooñu sosee sëñ Cheikh. Mhm. nu daara ji def kon bu ñëw ci sa loxo. waaw alhamdulilah eh, ndax daf doon daara daf di daara joo xam ne mën nañu wax daara ji fu la daara la joo xam ne kenn moomu ko. Mhm. ndax li waral loolu mooy mbooloo ñoo ànd samp ko. ku ñu wax Aboubacrine jàlloo fu nekk nii mu ngi Italie moo ko njëkk jiite jiite at jógee fa. Mhm. ku ñuy wax Birane Cissé rahimahullah yal na yàlla yërëm ko moom foofa la feebare ci daara ji sax ba ñu yóbbu ko mu yóbbu ko ca dëkk ba mu yàlla def mu génn àdduna mhm. bi mu jógee ci loxo Birane Sidi Kane diir bu néew la ko fa amee jóge fa mhm. euh, ku ñuy wax Saïd Gueye muy sunu mag moom mooy ki nga xam ne mooy yor micro central bi jamono boo ñëwee foofu mhm. mooy ki yor <coughs> micro bi yore na ko fa ay at moom itamit jóge fa 2000 euh, la fa jógee bi mu fa jógee ki ñu wax euh, euh, Ibrahima Lo moom it mu ngi fii ci dakaar ab commerçant la léegi. Mhm. jóge yore ko moom tamit lu tolloog at fa. Mhm. ku ñuy ki ñuy wax Layin Thiam moom jamono yi sax dellusiwaat na mu nga ca Daara ji yore ko moom it lu tolloog at jóge fa. ku mhm. ñuy wax Omar Cissé léegi mu ngi samp Daara Mbour yor ko ba 2000 fin 2005. yàlla def mu fay jógee léegi nag te. ku ko yor boo fay jógee dañuy xool ki gën a ràññeeku ci daara ji koo xam ne jàpp nañ ne su jiitee daara ji eh, ñi ci gannaawam jàppale ko daara yi dana mën a jëm kanam bi fa jógee nag fin 2005 nag fekk man sax maa ngi bëgg a déplacé wu ñii ne ma ah léegi kat yow yaa fi sa seey jiite daara ji ma leen ah loolu moom a diis di ma leen waaw xaar leen ba ma laaj samay waajur eh, ndigal ma laaj leen ko ñu ne ma a ah, mën ngaa toog lippi 2005 nag ba léegi yàlla def na ma maa fa nekk Euh, fas yéene yi tamit incha allah toog jàppale daara ji comme euh, nekk fa ba mu yàgg nga jógee fa keneen toogaat loolu du avancé mbir. Mhm. ndax keneen ku ku ñëw ak sa programme. Mhm. léegi nag bu ma toogee ñu ne ma nag fu mu ne nekk nii daara ji ëpp na di bàyyi nii. Mhm. war na war na am koo xam ne mooy toog nekk mu diir ba. teewut nag am naa fa ñoo fa nekkal ñoo xam ne ay mag lañ lépp lu ñuy def ñoo koy bokk waxtaanee. daara la joo xam ne ni ma ko waxee léegi du daara joo xam ne dafa am sëriñ boo xam ne. mooy toog rek ne lii mooy am force. daara ju am démocratie la. voilà léegi lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu euh, sumb. ñun ñëpp ciy waxtaan diisoo ci ndax yent bi sax yàlla dafa wa shaawirhum fil amr. fa idaa azamta fa tawakkal ala allah. loolu la ñuy loolu la ñuy doxee. daal diisoo la def ba teg benn mbir continuer ca waaye tamit ñu aju ci kokki ndax. sëñ Maxtaar Naar loo du wumpale ak ñun dara même bés bi sax moom moo ñu ci jox ndigal. Mm-hmm. gis nga ko bés ba sax day jo yónnee ab délégation boo xam ne bu am solo la. Mm-hmm. ñu doon suñu kilifa foofu it mooy kër sañ Mor Mbaye Cissé ba bés ni tey jii ñoom ñoo ñooy wéy di nekk suñuy kilifa. Mm-hmm. ndax sëñ Maxtaar naarloo loo su ma jokkoon daan ma fu ngeen nekk na ngeen fexe am kilifa. kon ñoom ñooy suñu jëwriñ foofu. Euh, lii daal moom mooy taarixu daar ji ci jaar-jaar yoo xam ne ay nit dinañ fay jaar di ko yor. di fa jógee ba yàlla def ñu mu agsi si noonu léegi lim bi fi mu toll ak fi nekk nii. waaw lim bi fi mu nekk nii ñu ngi ci juróom-ñetti téeméeri nit. juróom-ñetti téeméeri dongo juróom-ñetti téeméeri dongo. Mhm. ñu ngi fa jàngalekat yi toll ci juróom juróom-ñaar fukk. Mhm. waaw loolu fi mu ne lim bi foofu la toll. jàngalekat yi toll ci juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk am na wu jigéen. waaw ñun nag comme amaguñu dëgg-dëgg bërëb yoo xam ne yu ñoŋ la yu mën a jëlee jigéen. Mhm. moo tax fi mu ne ñu bëri ñun ñuy waaye daal mënaguñoo jël jigéen ndax bërëb yi moo. même même jàng di wàcc amul jigéen. waaw am na ay. benn benn benn benn waaw. benn benn. Euh, jërëjëf euh, actuellement nii su ma laajoon jafe-jafe bi ngeen am muy benn. Mhm. nga ñaar ñett ñett jafe-jafe ñi ngeen am yéen en tant que daara. doq mhm. kokki limal ma leen. waaw xam nga oustaz daara ñu toll ci juróom-ñetti téeméeri nit. Mm-hmm. te jamono yi ma lay wax e, dëkkuwaay amaguñu ko. xale yi mm-hmm. fi mu nekk nii. Mm-hmm. gaa am nañ fa daara fu daara ji fu ñu tabax ay mbaar yoo xam ne xale yaa ngi fay jàngee ak tabax benn bâtiment boo xam ne jàngalekat yaa nga fa waaye juróom-ñetti téeméeri nit yooyu mu wax la. sooy boo nga ne juróom-ñaar téeméeri nit yi ak nàngam yépp kër yi ñu dëkkee dañ leen ko abal. ci biir njaareem hmm. dëkkee nañ juróom-ñaari kër ci biir ndaa njaareem waaye ñoom ñëpp bu ñu xëyee nag dañuy ñëw jàng si jàng si suñu wàccee delluwaat ci kër yooyee hmm. Hmm. loolu kon jafe-jafe ñu local ci li ngeen am bi ci gën a rëy ci la bokk boobu mooy bi gën a rëy jafe-jafe ñu xale yi ma am fu ñu dëkk loolu jafe-jafe bu rëy la da ngeen amul wal wala terrain ba dafa xat waaw dañoo amul terrain da ngeen amul waaw euh, ñaareel ba mooy ci jafe-jafe njëkk ñaareel ba waaw ñaareel ba mooy ci wàllu sante ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax district ba fa nekk ñu ngi ñuy jàppale bu baax mhm. ak ndey daara yee fële ci kër gu mag am nañu poste santé boo xam ne donc bu feebar boo demee bu fekkee ci sibiru nga am yeneen ci nga yem ci ak yeneen feebar yi la jàppale faj la gratuite mhm. loolu ci jafe-jafe yi la mhm. euh, ñetteelu jafe-jafe bi mooy li li dal daara yépp te mooy ñàkk dund ba loolu tax xale yi di génn di uti lu ñu lu ñu dundee loolu tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne ñett jafe-jafe yi daal. loo de ñàkk dund oustaz. waaw ñàkk dund mooy fu mu nekk nii suñu amoon li ñu gënal. ceeb ak diwlin xale yooyu kenn du génn. maanaam dañuy togg ci biir daara ji ñëpp di fa añee di fa reere di fa ndékki kenn du génn boobaa hmm. yar bi dana gën a yomb jàngale mi dana gën a dañ nekk ci condition yu baax yoo xam ne d'accord eh, jàngale bi loolu mooy loolu mooy <laughs> ma yaakaar ne yéen a taamu daara yi cosaan yooyu nga xam ne dañuy yalwaa ni euh, defu leen ak fayeeku laaju leen kenn dara bu dee yéen a taamu loolu koy ñàkk dund teggeeku na léegi xale yi dañuy yalwaan di dunde waaw xam nga xam nga <coughs> hmm. tànnuñu ko hmm. waaye réew mi moo demee nii ndax euh, toujours ma koy wax ma ne ñaari façon daara moo fi am daara joo xam ne boroom day fayeeku xale yi nekk ci condition yu baax di dund nañ war a dundee ma ne daara jooju ña àttan loolee yóbbu fa seen doom lu baax la waaye tey mën naa la juróom-ñetti téeméer yi fa nekk tey booy ba na ne juróom-ñaar téeméer yëpp koo doon laaj waaye juróom mille francs wallahi al du la ko fay weer mille francs du la ko fay est que benn amuñu ko hmm. waaw li ci ëpp hmm. amuñu ko loolu moo tax kon faw maanaam ndimbal mooy mën a am mooy mën a am julli di jàpp ci ba ndongo yi mën a res ci biir daara ji loolu de jafe la waaw te loolu lu jafe lay doon mm-hmm. wala daara ji am ay ressources yoo xam ne ñu dimbali leen ñu am ay fu ñuy ay fu ñuy mën a amee xaalis. Mm-hmm. ba nga xam ne lépp danañ ko mën a jël en charge sa benn xale du génn. Mm-hmm. Eh, yelwaan loolu moo loolu moo waral loolu waaye du ñun ñoo ko tànn sax suñu suñu mm-hmm. sañoon. <laughs> xam nga ne sa sa émission bi ci gannaaw yaa ma ciy doon dalal di ma laaj. ma ne la suñu sañoon suñu sañoon. benn dong du génn ndax ñun xam nañ li ñuy jànkuwante dong yi génn ak a dugg ndax soo defee fukk soo gi su génnee parce que mu ñàkk juróom yi xam nga xam nga réew mi day réew moo xam ne boo jëlee doomu nit ne du ma ko ci laaj mille francs moom waroon na comme mu amul mille francs mu am cinq cent dëgg la bu amul cinq cent mu am quatre cent bu amul quatre cent mu am trois cent ba a fas say loxoom rek bàyyee la ko ne yol baa ndig daal wàkke juróom ñetti téeméeri xale waaw bu ko nekk joxee cinq cent defal calcul bi day daal di bari kay oustaz juróom-ñetti téeméeri dong waaw i calcul ah. kat yi jàppale leen ma ci jàppale leen ko ci <laughs> léegi ma jël résultat bi <laughs> nekk joxee cinq cent hmm. jàppale leen ko ci hmm. bu ko defee muy cent mille quatre cent mille Mhm. loolu quatre cent mille la. wàññil na usa Seex dara de. waaw mën naa jënd mën naa na facture yi sax ak facture ndox beeg courant bi. mën naa jënd ceeb <laughs> du dëgg. te seen biir ñooñu peut-être. Mhm. am na ñu man a joxe lu ëpp. Mhm. Euh, cinq cent. mais sëñ Mbàkke sunu penc mooy nit ki soo ko bëggee gàddul doomam. dafa ko yël banding bàyyi la ko. boo amee sens. boo wootee conférence bi mu ñëw. boo amee sens. mais boo amul sens ñëw sax du ko def. du dëgg. te bis boo xuri woon doom ja hmm. kaso nga jëm wallaahi wallaahi ngeen baal ma nag ci toog bu may waxee hmm. dëgg la parce que nekk yaa ngi aalu nag waaw maa ngi maa ngi <laughs> am na solo oustaz jërëjëf oustaz jërëjëf oustaz Seex kon ci jafe-jafe yi ngeen di jànkoonteel tudd nga ci ñett hmm. bi ci njëkk mooy barab bi maanaam xaw naa xat ba tax na dañoo dëkk dëkkaan ci biir dëkk ba ci kër yu àggut ak yu demee noonu di wàcc di eh, bu ñu wàccee ñibbi foofu ñu xëyee jàng si ak wàllu wér gi yaram ak wàllu dundub xale yi ndax daal la joo xam ne dañuy yelwaa nit dem ko ñëw kenn fayu fa dara daal kon mhm. oustaz xam naa laaj bi may toftal ci sa laaj boobu mhm. ci oustaz Cheikh bi ni nga ko waxee ne ko nan la def ba daal ji dugg ci loxoom mhm. euh, boobaak léegi ci condition yi ngeen nekk ba nga ciy dugg wala da ngeen amoon fu ngeen luyee wala nan ngeen def barab bi ngeen di jàngalee nan ngeen def ba jot ci waaw alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Mbàkke eh, daara ji li ñu man bi may ñëw li ma fa fekkoon mhm. mooy daara ji ci boppam sax moom amutul foo xam ne këru boppam la boo xam ne ñu ne kër gii daara jee ko moom mhm. loolu laa fa fekkoon mhm. dañ daan dëkk ci maa ngi seetlu benn nawet boo xam ne digg nawet la borom kër gi am ku ñu jaxaseeg borom kër gi ne ko yow gis nga ñii fekk foos dong lañ fa doon gas fu xale yi mën a suturloo mhm. am ko dem ci moom ne ko gis nga mu ngi Dakar fii sax am ku dem ci moom ne ko gis nga yow <laughs> donga daara yi nangu nañ sa kër mhm. ndax fekk naa leen fa ñuy ju ñi ñu fa jóor suuf ngir tabax hmm? koo ko jógee foofu daal di ñëw ne sama kër <laughs> sama kër mu ko ah sama kër génn leen walla ma dem police léegi ma hmm. ne ko ah loolu doy na waar di mun ma waawaaw sëñ Ba xam nga duñ mujj def hmm. bi dee ba ñàkk pexe dañoo dem abal ñi benn terrain boo xam ne dañoo dem rek jël suñuy mbaar dajji suñuy mbaar mm. mbaari seng yooyu waaw fa lañ dem mbaar ndend fooy fooy laa wax mm. ngir jànge fa parce que yàlla def nag suñu yaay ju baax ajaa roqee daba sekk mm. ñu koy nuyu bu baax muy bu baax bi mu yégee loolu jamono yooyu nag ñu jóg nag ne ah nañ fexe nag lijjanti terrain terrain boo xam ne daara jeeku moom nag lii métti na mm-hmm. bi mu ko yégee fekk am na ko ñuy wax Ousmane Touré moom bi mu fay jàng moom moo nekkoon yaayu daaraam. Mm-hmm. Ousmane moom ba léegi mu ngi ci daara ji sax moo yore liggéeyu mm-hmm. daara ji ñu koy nuyu bu baax. di ko ziar. moo Ousmane ne ko waaw yéen de dama dégg ngeen di lijjanti terrain daara ndax su ma leen joxee terrain bi daara rek ngeen ciy def Ousmane ne ko daara kese du ñu def sax tur. ne daara ji tur sax turu Cheikh gay nekk turu kenn nekku ca turu daara lu ko moo ca nekk. Mm-hmm. ca kayitu kër ga. ndax su leen ko joxee da alquran la ngeen fay jàng man ne ko alquran kese lañ fay jàng duñ fa def leneen. ndeysaan mu ne ko am naa terrain te daf ko njëkk wax ne ko am naa terrain bu may jaay. mu laaj ko mu ne ko un million. waaye ba ci biir mu ne ko dama leen doon seetlu rek waaye su fekkee daara rek a tax ngeen di ko euh, maanaam ngeen di ut terrain. Hmm. danaa leen jox sama terrain la. ndeysaan mu jox ñu benn terrain benn bii ci wetam ñu jand ko. Hmm. foofu mooy place daara ji. mooy fi daara ji nekk mooy fi daara ji nekk ñu commencé nag. di mati mati nag commencé taxawal bis bi nag di euh, woo al muhsinoon hmm. <laughs> kenn ku ne di sa dugal sa tut hmm. ak ñun tamit ñu ciy dugal ak ñi nga xam ne génne nañ ci daara ji te bëgg a dimbale daara ji. Euh, loolu daal mooy sababu. maanaam ñi am kër tey waaye man bi ma fay ñëw fekkuma fa woon loolu. condition yi méttee métti lañ fa fekkoon wax dëgg waaye nag fu ne. Euh, deux deux pour cent yi wàññeeku na Mbacke. am na fa tarkal deux pour cent de moom. as ah. <laughs> lëf la ci wàññeeku. ak ak néew. <laughs> du ca dara nekk. Ah. <laughs> am na solo oustaz. Euh, kon Cheikh Mokhtar. Mhm. dañu del siwaat ci yow. Mhm. oustaz mi ngi ko doon junj léegi. Euh, léegi lu ngeen di séentu ci woote bi. waaw woote bi liñ ci séentu. Mhm. mooy. daara ji léegi comme toll na euh, fi Seex wax am nañ euh, place boo xam ne léegi daara ji mun na fa nekk dongee dafa jànge mm-hmm. bëgg nañ ci oh, séntu nañ ci woote bi mbokk yi ñëw mm-hmm. moo xam ña fa jaara wala ñeneen ñoo xam ne jaaruñu te bëgg lu baax daal bëgg nañu euh, barab boobu daal ñu gën ko jëmmal mm-hmm. ndax jàngo fa ñu jàngee condition ya mën a baax ci ndong ya ak ña koy jàngale ndax it bu fekkee léegi bu toll na lu met lu toll ci juróom-ñetti téeméeri ndonga nga di ko jàngale te amula place bu baax euh, même daaw ji sax yaakaar naa nawet bi ñu génn rek am nañ jafe-jafe boobu di jàngale ndox di wàcc ci kaw xale yi jàng yéen ñi ngi sént ji mboolem ñi fay ñëw la Mbàkke doon wax ca sa woote bi naan na ngeen ñëw te ñëw loolu it ñu ngi koy wax ci mbokk mboo mboolem koo xam ne dégg nga woote bi ruq kooki ak foo mën a rek mm-hmm. nga ñëw te ñëw ndax it soxla nañ ko mm-hmm. Euh, xam nga ndimbali yi gis yeneen njàng bu ñu ko génn daaree li ci li ñu li ci li ci li ci nekk mooy ñii nga xam ne ñoo génne ci daar yi mm-hmm. ah, muy sax daara ak yeneen daara ci yam daanaka mën ngay xaw wax ne euh, ña fa jaaroon daanaka ñoo mujj di jëppal jàppale waa daara ci mm-hmm. dana am benn benn yoo xam ne it bëgg lu baax rek waaye defal yàlla ñëw fekk leen ci waaye daal liñ ci du ci waxtu bi daal mooy lépp loo xam ne dana jëmmalaat daara ji jëmmal njàng ma conditions yu baax ci jàngalekat yi ak jàngkat yi loolu daal bokk na ci liñ jublu ci woote bi boo ko defee te xamante gi dana am bari na ko xam ne fa la jànge woon woote bi dana tax mu ñëwaat gën a nemmeeku daara ji gis fa liggéey ba toll hmm. dana ko xiir dana ko motiver pour mu mën a mooy fàggu dara ñëw indi ci daara ji pour daara ji gën a jëm kanam hmm. ndax yu ustaas xam nga ne daara ju toll noonu boo boo doon compte fukki daara yi gën a mag ci Sénégal man danga ko ci boole hmm. daara ju am juróom-ñetti fukki juróom-ñetti téeméeri ndong ay juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki jaara jooju wax dëgg yàlla kilifa diini war nañ ko bàyyi xel waaye état yi war na ko bàyyi xel. Mm-hmm. war na ko bàyyi xel te ña fa nekk ñoo ko oustaz Cheikh Gueye waxee nii daara joo xam ne ñëw fa nekk doo fa gis benn borom karaw gu weex ñëpp ay xale la. te fi mu toll la muy génnee ci kaang ren xam naa yegg ko ci laaj boobu waaye kaa ngi at mi mokk lañ fanweeri xale yoo xam ne mokk lañ ci daara ji. macha allah lim bu toll noonu ci amagul espace boo xam ne bu bu mën a defee activité am yëpp la. Mm. kon mbooloo may ñëw ca barab ba ñun suñ jubluwaay wala si liñ ci séntu daal bëgg nañ ñëw ba am njëriñ bu baax a baax. Ah, comme lu mel ni yooyu it wax dëgg yàlla boo ñëwee am na taxawaay boo fay def am na lu fay mm. lu fay rusee. Mm. yooyu bëgg nañ ci mboolem kuy ñëw rek nga indiwaale. ci loo xam ne day jëmale nga ruusal fa dara daal <laughs> loolu daal moom bokk na ci nga xam ne bokk na ci jubluwaay yi nga xam ne woote bi kii na ko mm-hmm. euh, woote daara jàng koy woote incha allah ci bis mm-hmm. boobu tabarkalla incha allah sëñ Cheikh mm-hmm. kon luy seen programme waaw lu ngeen bëgg a doxale bis ba luy date ba luy programme ba kañ lay tàmbali kañ lay jeex waaw date bi day la onze la mooy dimanche ji di ñëw incha allahu taala bu ñu xëyee neuf heures danañu dalal gan yi euh, bu ñu ba ay neuf heures demi jëm dix heures danañu ubbi jataay ba ci ay ayat euh, min al kitaab al hakim suñu cee jógee Pape Kandji Baye Daara mooy ubbi jataay ba mhm. euh, bu ko ubbee nag kilifa yi nga xam ne teew nañ fa ci ay autorité ak kilifa diina euh, danañu jël kàddu mhm. dana am ko wax ci turu ñi nga xam ne ñoo génne ci daara ja mhm. danañu nekk ci xale yi di dugal xale yi ñuy jàng ak def ay anachid mm-hmm. suñu demee ba une heure nag insha allahu taala muy yow moomu insha allahu taala bu yàlla defee nga teew ak jàmm mm-hmm. yàlla yàlla bul am benn gàllankoor mm-hmm. nga soog a jël euh, li nga xamante ne ni mooy micro bi nag wax ak euh, julli ji nag insha allah ci thème boo xam ne euh, minhaj minhajul quran minhajul quran fii binaa'il mujtama waaw muy thème boo xam ne li tax ñu tànn ko mooy gis nañ ne fu mu ne nii daa mel ni ñëpp gëlëm daa mel ni ñëpp dañoo gëlëm xamatuñu fu ñu jëm te alxuraan yàlla dafa waxoon euh, kitaabun anzalnahu ilayka euh, mubarakun mm-hmm. nu mu ko waxee sax li tuxrija naasa min mm-hmm. azulumaati ila nuur li tuxrija naasa min mm-hmm. azulumaati ilayka li tuxrija naasa min azulumaati ila nuur min azulumaati ila nuur daa mel ni ci ay zulumaat lañ nekk <laughs> waaw léegi nag wax ak askan wi nag ba ñu génn ci zulumaat yooyu ci ay façon yu bari ndax yàlla gis nga foofu jamono ko def zulumaat hmm. bari lool ay xel yu bari yoo xam ne tey ñu ngi koy jànkuwante bokk na ci seen xabaaru daara jërëjëf yi ngeen fi doon lim yu bari hmm. mel ni réew mi tey def na kër gëkk demul dikkul hmm. kon nag war nañoo dellu solution banque ci alquran fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan banka maishatan bank boobu nag ci la ñuy dund tey moo tax ñu tànn tem boobee nga xam ne dafa généralisé nga xam ne suñu société woon na ko lool lool lool mm-hmm. ñu delluwaat ci téere borom bi subhaanahu wa taala ndax moom dong moo ñu mën a gindi moo ñu mën a teg ci yoon woo xam ne euh, yoon wu jub la mm-hmm. kon oustaz euh, loolu mooy programme bi insha allahu taala dimanche lay doon soobee yàlla mm-hmm. am na solo sëñ Mbacke mm. jërëjëf oustaz jërëjëf oustaz Cheikh sëñ Makhtar jërëjëf ci foofu nga xamante ne fi ngeen toll oustaz kon mooy bis bi mm. bis bi nga xamante ne moom la waa ruqu kokki di woote mm. xam naa damay dellu siwaat ci sababu bis bi sabab bi euh, sëñ Cheikh lan moo sabab bis bi ndax xale yi dafa am ñu mokkal alxuraan ngeen leen di indi ñuy tari wala bis bi da ngeen ko woote rek ngir kaajee lu jëm ci daara ji waaw Muxtaar wax na ko léegi bis bi li ko tax a jóg mooy feeñal léegi yu daara ji mooy mooy ci njëkk ndax am na waajur yoo xam ne indi nañ fa seen dongo seeni doom euh, bëgg nañ xam daara ji ni muy doxe ñu taxawal bés boo xam ne dañ ci woo waajur yi ñooy ñooy njëkk ci woote bi hmm. ñu ñëw xool seeni doom seeni nekkin hmm. d'abord xool seen seeni doom seeni nekkin hmm. waaye ñu fisal fa alquran ak ak lu mu néew néew néew xale yi jàng fa alquran ñu xam léegi qualité njàng mi nga xam ne ndongo yaa ngi ko fay jàng mm-hmm. loolu ci la bokk feeñal taaru daara ji mm-hmm. waaye dindi tuumaay daara ci ne da surtout daara yi yelwaan daara yi jànguñu dañuy yelwaan nangam nangam xam nga ne daara ju toll noonu bu génnee fanweeri kàng diggante conférence daaw ba ak ren mm-hmm. suñ nekkoon condition yu baax wallahi la azim koroon dana dana dana ëpp foofu dana ëpp foofu su ko defee dindi tuuma tuuma yi ñuy tuumaal ne daara yi kat yelwaan lañ fi nekkee waaye jànguñu jàng jàngale sëñ daara yi jàng ngeen wane ne bokk leen bo wane ne loolu nag moom ndax dindi tuuma moom. waa ragal. Ah? maanaam eh, liñ naan dindi tuuma du ragal. waaw <laughs> du ragal loolu loolu la ci li ci la bokk. Mm-hmm. ñaareel ba mooy dajale jaamu yàlla yi wan leen ne ab bërëb a ngi nii kat boo xam ne bërëbu yàlla la. Mm-hmm. bërëb bu ñu jàngi alquran foofu palaasu yàlla la. Mm-hmm. ndax jànguñu fa waxi kenn ku dul waxi borom bi subhaanahu te ñëpp la ko adressé. wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas ba ca jullit yi nangoon ak wuy si yàlla wa ma arsalnaak illaa rahmatan lil alamin mm-hmm. kon loolu ñépp war koo xam-xam ne fii bërëbu mm-hmm. alquran la ñëpp ci bokk yam ku ci def yàlla mm-hmm. njëkk a woote ne nañ defal wa anfiqu fi sabilillah waxaat wa aqridu llaha qardan xasana yooyu yëpp ay ayaat yu bari la yoo xam ne kat yàlla ci boppam moom moo woote ñu joxe ci yoonu yàlla te daara kat lenn ëpp lu ko importance ci yoonu yàlla dara jiitu ko ci yoonu yàlla ndax fa la ñuy formé ñëpp muy muy imaam ya boroom xam-xam ya ñëpp ci daaral leen di formé ñu won leen bërëb ba su ko defee suñ ko gisee ah mën naa am seen yaram dana daw ba kenn ku ne bu dee ab dërëm sax da ko fa ruusal ndeysaan bu dee koo xam i tamit danga nga ko woone ko ah ab bërëb a ngi nii de bërëb boo xam ne bërëbu yàlla la loolu yërëmtalu na di waaw yërëmtalu ndax fi ne nii si yërëmtalu lañ nekk ndax am ko wax bu am ndongo tëree alxuraan ba pare ñu ne ay eh, ndeysaan ay mm, eh, ndeysaan ay eh, ndeysaan loolu da nga cee teg te dañoo war a weesu foofu nag ndeysaan waaw dañoo war a weesu kon sabab yi jëm ci noonu mhm. sabab bi mooy loolu sabab bi mooy woo julliti yàlla yi mm. ñu ñëw denc ci compte boo xam ne du lakk mm. lu ñu ko sàcc maanaa ëllëg yowm alqiyaama wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi wa xayran wa acdama ajra ah? foofu laa bëggoon jëm mooy ndax daara ji am na compte mu daara ji am na compte am na compte ci ci banque bi waaw ku ñëw mën caa dugal daraam wala fu mm-hmm. waa nekk mën caa dugal waaw waaw loolu de am na solo am na compte mm-hmm. BCEAO moo mooy moo moo. mooy seen compte mooy seen compte. waaw ah. ngeen tuuti. am na compte waaw ñu léegi sëñ Mbacke waaw maa bëggoon laaj sëñ Moxtaar. sëñ Moxtaar waaw. Euh, daara ji comme nee nañ xale yi danañ xëy di yalwaani. Mm-hmm. ndax ñoom lu ñu ndékkee wala lu ñu añee rek la wala léeg-léeg ñu indi xaalis. waaw parce que kii dégg daara léegi day jàpp ne da xale yi dañu xëy ñu sas leen. Mm-hmm. waaw Moxtaar waaw Oustaz ñu ngi sant bu baax eh, ci laaj boobu sawar nañ ci tontu lool. Mhm. ndax ñun ñi yàlla def na dañ faa jaar yalwaan. Mhm. bañ fa yalwaan man yalwaan ma gis ak moomu dañuy wutee sax. Mhm. ba léegi damay toog ay jamono comme nekkoo may laajte ndax noonu lay demee ba léegi ñu ne ma noonu lay demee ba léegi. ndax kii yalwaan xam nga daara ji ña fay jàngale kenn fayu leen ñi juróom-ñaar eh, fukki jàngalekat yooyu ñu la wax kenn fayu leen. ñu ngi fay jàngale xale yi bu ñu yalwaanee am lu ñu ndekkee xam nga 9h 9h 9h 5 xale bu yelwaan 9h 5 9h 10 bu la fekkee ci ci àll bi sax boo ñëwee man nga man booy moytu dañ la pine. kon daara ji yelwaan bi xale yi di yelwaan noonu te man la ma fay nekk di yelwaan te maa ngi yaakaar maa ngi laajte ba léegi joye ko naaf waaye loolu moo fa am ne. Mm-hmm. xale bi su yelwaan. pour xale bi la sax weccaro mi am ko néew du ko ole mën na koo jox sëriñ waaye magam koo xam ne moo ko féete mag di ko téel su dàllam daggee mu jënd ci hmm. yu mel bu war a fóot te amuñ yóbbantuñ ko saabu mu jënd ci saabu fóot ak yu noonu daanaka xale ci li ñu yalaan ci seen bopp hmm. lay dellu dégg nga jàngal moo tax xam nga oustaz yaa ngi laaj jaar-jaaram di tax mu jiite daara ji bari daara ji ñu tax mu ñu fa yàgg pour di ko jiite hmm. nit dafay da ngay nekk responsable wala nga nekk soutien de famille nekk ci daara ji yow kenn ñu féetewul la fenn. Mhm. nga nekk féete dong yi foofu. état fayul la keneen fayul la parents d'élèves kenn fayul la. Mhm. yow it yaa ngi wala yaa ngi bëgg yokk sam njàngum xam-xam ak yu mel noonu. Mhm. loolu moo lay tax ba doo mën a yàgg ci daara ñi ko jiite am na ñoo xam ne macha allah jàmbaar lañ lool comme magam bi mu wax ku mel ni Saint Saint Guèye bu ko sañoon nekk ci daara ne doo fa wax dëgg yàlla a baax am na loo xam ne condition yoo xam ne mënoo cee dong yi seen yalwaan mën nañu wax seen bopp lañ lu ñu aña la ak lu ñu ndékkee lañ ci amoon ci xaalis ak néew ci seen bopp dellu ay daal lekk xam nga donga daara mën nga ko jëndal téere boo sa doom bi nekk ci daara da ko jëndal téere am ma bala ñaari weer mu yàq ko mm-hmm. bu ko defee nag kii doo la fi mën a nekk di la wanaan jëndal ko téere nangam bu ko defee weccet moom doon amaka néew ci lañ ko ci jëndal wala daalam dagg weccet woo ci lañ ko jëndal ah, kon duñ ko nekk di ko kon yalwaan man dama daan yalwaan xaalis moo fay dem ñu ne moo fay dox ba léegi hmm. xaalis moom mos ma ko jox sëriñ ba masha Allah ah, oustaz Cheikh looloo yi jàngalekat yi lan la ñuy dundee dañ leen di fay kon wala kenn fayu leen ah dañ faa nekk noonu rek bu ñu yalwaanee hmm. parce que ñoom ci daara ja lañ jànge ba mokkal ah, toog fa toogaat fa di jàng dañoo am condition yu ñu teg mhm. parce que comme mënuñoo jàpp jàngalekat di ko fay mhm. léegi ku ñu fa jàngal ba nga mokkal mhm. dangay ngay toog jàngale fa lu mu néew néew nga jàngale fa toll at wala lu ko ëpp am na ñoo xam ne fi am nañ fa ay juróom-ñaari at toog fa di jàngale waaye jàpp ñu jàngalekat eh, ngir di ko fay loolu moo tax ñu mën a am loolu te utile aussi am nañ fa xalq boo xam ne maanaam li ñuy wax majaalis mhm. foo xam ne fa la xale yi jàngee ñu mokkal lañ fay ñëwaat di jàng jàng si d'accord euh, koo xam ne moom spécial moom loolu la rek pour jàngal jàngal xale yi nga xam ne ñoom ñoo moo ko laxdaru risaala waaw ba macha allah ba lawal ba yeneen téere yi nga xam ne wàllu luxa yooyu yëpp dañ ko fay jàngale wàllu xadis wàllu ulumul quran yàlla def na am nañ fa ndongo boo xam ne daaw jéeg ci concours yi doon def fii ci reesoo Njaareem mu gañe dem Murtani ñu forme ko ci euh, ulumul Qur'an mu am ñetti riwaaya Qaaluun Hafs Warsh ñibbisi na ba mu nga foofa ca daara ja bu ci wàllu xam-xam yooyu nga xam ne soxla nañ ko dañ la fiy téye ne comme sa waajur lay bëgg nga jàngi feneen xam-xam fii am na loo fi mën a jàngee nga téye fa doonte ñu téye fa doonte benn at la wala ñaar nga jàngale ko fa am am ñoo fa mokkalal yow soog a dem ñoo ñu toog sa place. am na solo waaw loolu mooy mooy sa <laughs> loolu loolu am na waaye daara ja sasuñu kenn. Mhm. laaju ñu kenn benn dërëm. suñu kenn benn dong. léegi seen diggante ak yi ministre de l'éducation nationale. préfet sous préfet gouverneur. ak seen diggante ñooñu ak daara ji nu mu demee. waaw alhamdulilah euh, monsieur le maire moom avant muy dugg ci politique sax moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ci njëkk dugal seen loxo ci daara ji la. ci wàllu tabax mag yooyu ñu ngi koy nuyu bu baax muy Malick Fall. Mhm. Euh, jàmbaar ci daara ji la bu baax a baax macha allah euh, moom wax dëgg yàlla am nañu relation ak moom bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. euh, bu dee préfet ah yenn saa yi soo ñëwee da nga fa dajeeg moom. Mm-hmm. waaye nag moom amaguñu lu jógee ci état benn saako ciment sax bu jógee ci état moom amaguñu ko. Mm-hmm. waaw amaguñu ko. moom lu est-ce ñoom yëg nañ leen. yëg nañ ko. xam nañ daara yëpp lañ xam. loolu la bëgg a wax. <laughs> daara ndax kayit kayit yi ñuy laaj ci daara. Mm. bañ xam ne daara jaa ngi nii. bu li jógee fa la jëm. buñ bindee rapport xam ko ci ndax loolu am ngeen ko. Euh, waaw bu daara ji de am na récépissé. waaw am na kayit yi mu war a am am na ko. am na reconnaissance. waaw. am na euh, autorisation non reconnaissance moom. Hmm. parce que euh, defe naa ne coow li mu ngi fi woon mooy projet de loi boobu ñu indi woon ci daara ji di wax ne daara nii ak nii ak nii lay doxee. Hmm. parce dëppoo guñ ci woon ak ñoom. Hmm. moo tax parce que point yi indi woon ñun d'accorduñ ci woon. lalu nañ Tuubaa ñetti fan. Euh, ñun bind li nga xam ne noonu lañ bëgg daara doxee ba dégg naa jébbal nañ ko euh, ministre ba ba jébbal na ko président waaye ba léegi tontooguñ ñi mm-hmm. parce que ni conditions yi ñuy wax ñun d'accorduñu ci ndax gis nañ mooy ray daara rek. waaye waaye ko léegi nag toog di xaar. depuis daaw depuis daaw jéeg lañ ko def. Mhm. d' accord en tout cas daal état kon bu ma la déggee mooy dugalagu ci loxoom moom. maanaam ci lu fës luñ ne lii ñoo leen ko jàppale. déedéet amul. Mhm. xanaa maire maire da naa laal ci état tuuti. comme comme am ngeen maire moom maire bu dëkk it nag moo. xam nga maire moom ba muy def ci daara yi sax booba jiiteegul euh, nekkagul maire. Hmm. jaareem waaye ba léegi amagut xam nga ne maire amagut doole yoo xam ne mën a jël <laughs> ñu ngi bëgg suuf sax guñ ko am ci moom. ndeysaan ndax daara ya xam nga ne aajo woon a suuf. dëgg la ñu ngi am terrain boo xam ne fu mu ne am na ku ñu ko bëgg jaay terrain bu yaatu la 7 millions la wax. xam naa mm-hmm. loolu moom dañ ci woo jaam yàlla yi. 7 mm-hmm. millions foofu ci Diourbel. ci Diourbel. Mm-hmm. te soriwul bërëbu daara ji dara. te yaatu na te yaatu na macha allah moom buñ ko amoon moom. defe naa ne maa ngi ne woon 2 pour cent waaye bu ñu ko amoon moom 50 euh, pour cent nga xam ne kon da ngeen di léegi li ngeen di yitteel mooy di ko tabax ak yooyu rek. mooy doon kii bi baax na te ñu ngi ciy woo bokk jullit yëpp nag. set bi ñëw da bëriwul xëy na bu dimanche ngeen am ko. waaw incha allah <laughs> bu oustaz da di kii oustaz rek bu ñëwee yëngalal leen <laughs> <laughs> bu ñëwee yëngalal leen rek. <laughs> tubarkalla xam naa ñu ngi suñu minute yu mujj waaw ñu ngi ci minute yu mujj yi oustaz gannaaw bi ñu jaajëfalee bu baax a baax sëñ Cheikh Gueye ak sëñ Makhtar Sakho jaajëfal mbokk yi bàyyi xel si defem seen rajo seen jotaay bi di albidaaya ñu dalal mbokki daara yi bàyyi koo Jurbel ci daara jooju nga xam ne mooy ruxu kokki di woote seen bisum ndaje biñ fas yéenee amal dimanche ji di bis boo xamante ne dañ ciy wane liggéeyu daara ji waaye tàllalaale ci loxo yi itam defkati lu baax yi ci daara ji oustaz Maxtaar oustaz Cheikh wax nañu léegi ne lu mat fanweeri xale mokkal nañ fa alxuraan ci jamono ji daara ji toll ci euh, maanaam juróom-ñetti téeméeri xale juróom-ñaar fukki jàngalekat nekk fa ñu leen di saytu te kenn fayut benn dërëm lu dul dañuy dem rek di yalwaani loo xam ne ngir luñ mën a dund la ba jàng alxuraan buñ ñëwee continuer kon loolu taxawaay bu am solo la oustaz kon dañuy daal di ñëw rek ci tour de table bu mujj bi jox Oustaz Cheikh kàddu gi mu indi eh, xëy na luñ ko waroon a laaj te laajuñ ko ko ak kàddu yi nga xam ne moom lay jeexale bisimilah jërëjëf waaw jërëjëf eh, mu mel ni dañuy nuyu nag xam naa moom la waroon na njëkkee mooy suñ mag ñi nga xam ne ñoo fa jaaroon fu mel ni fii ci Dakar Serigne Maodo Touré hmm. parce que dafa am ay association yoo xam ne dañ koo samp ci gox yi fii ci Dakar sëñ Maodo ture moom mooy nga xam ne moo jiite association bi fi nekk. Eh, ñu ngi koy nuyu baax ak suñu mag Saïd Guèye. ñoom ñu ngi fii ci Dakar. ak ñi nga xam ne génne ca Daara bu dee Mbour sëñ Omar Cissé moo fa nekk. bu dee Touba sëñ Madi Cissé fa nekk bu dee Kaolack sëñ Tidiane Thiam moo fa nekk bu dee Kaffrine Souleymane Ndiaye fa nekk bu dee Ndar sëriñ Omar Ndaw ca Sewi Alxaaji moom moo fa nekk su ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo génn ci daara ji. Mm-hmm. samp ay association yoo xam ne dañ koy jàppale li nga xam ne maanaam di dajee par weer bu nekk lu ñu am si tuut muy dee am ñaar téeméer la ñu dajale ko bés baax ñu indi ko ne lii kat mooy li nga xam ne dañ jàppale daara ji. kon ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di nuyu sunu yaay euh, Roqeya euh, Seck bu baax di nuyu tamit Kumba Diagne. doomam Kumba Diagne Cissé mu ngi fii moom waroon naa ñëw bokk ci émission bi sax waaye yàlla dafa def dafa am empêchement. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a di ko ziar. di nuyu waa njaareem yépp di nuyu sëriñ Abib Kandji ci quartier Thierno Kandji fa ñu nekk di nuyu mboolem li nga xam ne eh, ñooy xaritu daara ji di wax ne daal daara jaa ngi noonu sëñ Mbàkke mhm. am na projet bu rëy boo xam ne man jàpp naa ne ndax Oustaz Alioune Badara Ndaw yàlla la génn ko ci xat-xat yi mu nekk bi mu fa ñëwee daawatu jéeg def conférence daf ne su fekkoon tey ajuma bu jot jullit julli buy jullit buy jullit ji yóbbaale cent franc bi mu ko calculer mu ne konoon loolu bu ñu ko defee at rek daara ji Sénégal yëpp. man mhm. a man a defee <laughs> may kon nga gis ne kon ñàkk programme. Mhm. ñàkk organisation moo tax tey daara yi di maanaam ni ñu mel tey ñu mel ko. waaye jullit yi maanaam lu defar daara yi mu ngi fi. am na solo tabarkalla kon loolu jullit yi war lañ ci bàyyi xel bu baax xam ne li leen yàlla jox yàlla ne li ma leen jox na ngeen ci sàkku seen kërug àllaaxira mhm. loolu la yàlla njëkkee. wabatexi fii ma aataaka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk kon loolu war julli war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi woo jullit yépp leen ne daara jàngi noonu daara waqfu la kenn mu jullit yépp ci bokk yem ñu ngi woo moo leen koo xam ne rek yàlla man loola la kon oustaz dafa mel ni heure baa ngi xoj ci dañu jox sañ maxtaar mu euh, am lu mujjee wala boog su fekkee am na yeneen i mbir yoo xam ne ngeen koo laajaa ak <laughs> jërëjëf oustaz Cheikh ñu jaajëfal la ci kàddu yu mujj yooyu oustaz Makhtar kon ñoo yow sa kàddu yu mujj waaw kàddu yu mujj mooy oustaz Mbacké euh, di gën a soññ sama bopp ak ñi nga xam ne jaaroon nañ ci daara ja te nekk ci comme ni nga ko waxee gox goxaan yi mhm. rawatina ci raison yëpp nga xam ne kenn ku nekk am na kuñ fa jiital su ko defee ñooñu ñi xam ne daara ji ñëpp ñoo moom daara ji waaye ci rawati ñoo fa jaar su ko defee ñu gën a góor góorlu am na kenn ku nekk luñ ñaanoon ci yow daal saa yoo ca la nga la ngay liggéey ci la nga yëngatu daal sag weer nga am loo ci sàkk daal bàyyi xel daara ji ne fii kat la alxuraan ji man nàmp li ma root fii laa ko rootee bàyyi xel daal jooju di ko gëstu euh, di di di di di di ñaax ñëpp na képp koo xam ne xam nga ko fa jaaroon rek fu mënta nekk rek nga yëgal ko liggéey boobu daal liggéey bu am solo ndax it ndimbal na ci fekk loxol borom su ko defee loolu dana tax ñeneen ñi sawar cee def ndax yow mi ko moom soo liggéeyee keneen ku ñëw rek fekk la ci day yomb lool kon ñi ngi euh, ñëpp rek ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi jàppale daara yi yeneen daar yëpp ñu ngi leen woo ci daara jooju ndax daara jara jàppale la ndax lim ba ndongo yeeg jàngalekat ya jafe-jafe ca nekk yëpp rek bëgg nañ suñu borom dindi ko tey ci jaamu yàlla lañ ko yaakaar ñu ngi ñaan yàlla yooyu la yóbbu ñu ci bis ba dëkkandoor yi rek ñu ngi leen a sant bu baax a baax ci taxawaay ci daara ji bu ko defee ñu xam ne gan yi fa ñëw seen gan la ñu mën leen a yaatal bu baax a baax di sant kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa aada ci dëkk bi ak kilifa diine yëpp dig euh, daje ci dëkk ci bis ba incha allah yàlla yóbbu ñu ci jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf sëñ Makhtar Sakho jërëjëf oustaz Cheikh Gueye oustaz kon euh, jotaay baa ngi noonu. jotaay baa ngi noonu kon li ci teg mooy rek. li ci tege ginnaaw bi ñu jaajëfalee gan ñi ànd ak waa rédaction bi lay doon ci tënkum xibaar ci français ak ci wolof dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi. bu leen toxal si nag déglu fañ jëm fi yàgg incha allah.